bisimila dal leen ak jàmm mbokk internet yi ñu ñëw ak yéen ci face à face corps à corps gi doxoon ci diggante médecin bii di professeur Seydi ak kako doon artoo ko dankaafu ca armeel ya moom Amadou Ngom mi nga xamante ne nii moom moo daloon ci kaw professeur Seydi yoon mujj na ko teg loxo ba ko jamono jii nii defere nañ ko au parquet talaata ci ngoon bi ñu ko tegee loxo nag ñoom ñaar mujj nañu jàkkaarloo ci kanamu takk der ya moom Amadou Ngom di ab ingénieur xamante ne moom mooy professeur Seydi ginnaaw bi mu dëggalee ne li ñu koy jiiñ moom moo ko def waaye ba tey wax na ni musula wax professeur Seydi ne ko raykatu nit nga njiital service de maladies infectieuses bu Fann donte ingénieur bi di Amadou Ngom jéggalu na taxul benn yoon mu daal di retirer plainte am la mu xamal Amadou Ngom Guèye kay mooy waxtu wi nga xamante ne nii mi ngi doon dal ci kawam dafa ñëwoon ngir xool si ak ziyaara doomam bu jigéen bu faatu woon fukki at ak juróom ñett ci ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci wàllu observateur jébbal xibaar bi ci alxamis ci professeur Seydi xamle na ni doxalin yu mel ni bi nga xamante ne moom la Amadou Ngom Guèye am faat na ay fajkat yu baree bari ci jamonoog mbas ci biir Afrique lu ci mënti am Amadou Ngom Guèye moom mi nga xamante ne nii moom moo daloon ci kaw professeur Seydi defeere nanu ko ci ni ko waa journal Libération fësale bu ñu sukkandikoo ci boobule xibaar ba tey li ñu koy toppee mooy menace de mort violence ak voie de fait Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal